أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة mbokk yi nga xam ne yéen a ngi ñuy topp ci seen rubrique xew-xewu jamono ngeen ànd ak seen mbokk imam Dramé ñu ngi nuyu sénégalais yi fu ñu mën a nekk moo xam sénégalais yi nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew tey xew-xew bi nag du gudd dañuy ñëwaat ak yéen ci point boo xam ne ragal nañ ni tey saf na sàpp ci pénc mi waaw tey pénc mi yëpp war rawatina umma bi moom lañuy waxtaanee mooy tëj jàkka ak tijji jàkka ñun nag dañ ciy joxe sunu xalaat waxoon nañ ci sax waaye la répétition est pédagogique lolou tubaab wax waxat ci rek gëna léral man jàngat bima am ci tëjum jakkay fi ci addu ci Sénégal ak ci ci aduna bi wala li ëpp ci réewi jullit ñi moy man en tant que ab jullit lima ci war jangé moy moy mooy yalla gu metti gi nga xamni ni réewi jullit ñi nekk nañ ci bokk na ci parce que jullit ñi boo gisee yàlla li mën a muñal ñenn ñi du leen ko muñal ñoom mooy yàlla def leen a jox téere bu ñuy wax alquran jox leen yonent bu ñuy wax sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa yenent boobu ñëwoon jox ñu ay recommandation ni ñu àdduna bi kat ñetti étape la étape bi jiitu moom ngeen di wax la passé li li nga xam ni jàll na ci ginnaaw yonent bi ñëw résumé ñu wax ñu li passé lépp yonent yi fi ñu jaar li commencé ci aadama ba ci moom pour résumer yonent bi waxaat ñu temps bu ñuy wax la présent mooy fii ñu toll nan lañ ci war a taxawee ba suñ dund jag yonent saay la waxaat ñu le futur mooy lii ñu jëm ci sunu kanam di yowmal xiyaam bu ñu demee lu ñu fay fekk yonent boobu nag lépp lu mu ñu waxoon ñun jullit ñi tey sànni nañ ko ca ñag ba jël waxi keneen teg ko ci kaw kon tey bu ñu demee ba ñu tëjal ñu suñuy jàkk li ñu war a gën a xalaat mooy lan moo tax ñu tëj jàkka yi mais waruñu ko jiiñ ay nit wala ñuy xuloo ci suñu biir déedéet affaire bi yomb na yan bàkkaar lañ def rek yu war a tax yàlla mere ñu ba ni man sama kër gi ma gën a fonk nga xam ne nii moom moom mooy gi ma gën a fonk ci kaw suuf taxaw leen ma tëj ko ab diir pour wan leen ni kontaanuma ci yéen mbokk yi Sénégal gi ñu nekk yàlla tere woon nañu ni nangeen ngeen moytu loolu ñuy wax sàngara ndax sàngara mooy bopp ñaawteef yi Sénégal tey boo fi ñëwee maanaam sàngara fi gën a yomb sax yenn boisson yi waaw boo duggee ci banlieue ndakaar bi di gis ni nit ñi la fa ci ay baar yoo xam ne ay clandestin la ay nit dafa jaay sàngara te ñoo ko fay jaay mbokk yi ay turu jullit lañ yor loolu il faut ñu nangu ko mooy li am tey sàngara si nekk ci réew mi ñëpp ñu koy utiliser néew ma ay jullit lañ mais ay tur jullit lañ yor parce que l'islam moom du tur ay comportement la ak ay attitude ñun ñu seetaan loolu nangu ko mbokk yi yàlla tere woon nañu njaaloo Sénégal dañuy jox jigéen carte muy taxaw di jaay boppam te jigéen jooju di jaay boppam day fay impôt bu at mi deewee maanaam buñ ñu demee ba fin d'année day dem trésor fay impôt ci réew moo xam dañu ne quatre-vingt-quinze pour cent ay jullit lañ loolu moom dinañ ci ñëwaat man Sénégal dama gëm ni bu dee am nañ jullit dix pour cent ah man dama jàpp ni ci sama xalaat lay wax buñ ñu amee dix pour cent musulmans croyants ñu gëm ci la ñuy yem quatre-vingt-quinze pour cent moom dañ ñu koy naxee rek ay turu jullit nag bari na fi jigéen ñooñu di njaaloo mbokk yi suñu république ñun sénégalais yi ndax bu ñu république ñëpp a ngi ci biir république du nguur gi rek république bi mooy un peuple un but une fois képp kuy sénégalais yaa ngi ci biir ñun ñoo cautionné loolu ñu bàyyi jigéen muy njaaloo di fay impôt ñu jëlaat xaalis boobu di ko dugalaat ci sunu société bi te ñu bàyyi xel ni yàlla waxoon na ni ñaara ngi ni ñoo xam ne man yàlla attaqué naa leen guerre kii jiitu mooy kii lekk riba kii lekk riba moom yàlla nee na attaqué naa ko guerre maag sama yonant te xam ngeen ni guerre bi yàlla xajul ci nit te réew mi nag bu ñu waxantee dëgg riba ji ñi ci mucc tey bariwul de parce que xaalis bi traîné mooy dem ci gàmmu yi mooy dem ci màggal yi mooy dem ci église bi mooy dem mooy dem ci jàkka yi bu campagne bi jotee élection jot ci la ñuy jox nit ñi kon riba ñi ci mu ci bariwul société nag bu demee ba àgg foofu ci bàkkaar yooyu noonu mu des bàkkaar bi nga xam ni lu bari ci réew mi la ma cité ko mooy di ŋàññ nitu yàlla Sénégal mag ñi nga xam ni tey ñoo sañcoon réew mi ci diine xeexal lislaam ba lislaam tasaaroo ci réew mi ba ñun tey ñu mën a dund japp ne ay julit lañ mag ñooñu chaque jour nga gis nit bind ab téere attaqué leen xas leen saaga leen kenn lu ci wax te yàlla waxoon nañu ni man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi képp koo xam ni attaqué nga wàlliyu man yàlla man nga attaqué guerre sénégal chaque jour ñu ngàññ fi ay wàlliyu ñoo xam ni ay wàlliyu lañ ñoo xam ni wér na ni ay wàlliyu lañ waxuma sëriñ mais wàllu yu laa wax sëriñ moom ni ko senegale jàppee mooy ko xam ne da ngaa judd ci famille sëriñ man loolu taxul may wax wàllu yu ñi nga xam ni werante amul ci ni seen dund yëpp yàlla lañ ko jox ak yonent bi ay nit a ngi bind ay téere di leen saaga ni ay yéefar lañ te kenn réagirul kon mbokk yi bàkkaar yu bari yooyu moo tax tey yàlla nattooñu ñu tëj suñuy jàkka yàlla ni ñu yéen da ngeen di sóob gëmu leen lislaam da ngeen koo mbuboo pour man képp kuy ab jullit ci loolu nga war a xalaat gëm ni li am tey ci pénc mi man am naa ci responsabilité parce que biñ ko fi def maa ngi fi nekkoon te waxuma woon te xeetu yonent bi lenn rek lañu rawee yeneen xeet yi mbokk yi ci la leen yàlla tagg mooy digle lu baax tere lu bon ñii di yuuxu fii ñëpp imaam yi yuuxu naan tëj nañ jàkk yi nañ ko tijji mbokk yi xoola ñu ci bari mbonte googu may wax bi muy am ci réew mi ñu ngi fi woon te kenn waxu ci woon li may wax nag pour daaneel ci li ma jàpp mooy man du ab docteur du man maay dugg ci dinañ tëj jàkka wala duñ ko tijji ñi proposé ni nañ ko tijji am nañ ci droit parce que tëj jàkka diis na ci ab jullit waaye man du ma dugg ci débat boobu ndax maîtriser wu ma ko parce que maîtriser wu ma feebar bi xaw ma fu mu toll loolu dama koy bàyyi ak docteur yi man laa wax man imam Dramé ñi nga xam ne nañ ko tijji ñoom it am na fu ñu ko teg loolu du problème l'islam loolu yàgg na ci ku ne ak gis-gis bi ci am. loolu ñi xam lislaam du seen problème waaye man li ma jàpp ni tey moo tax yàlla nattoo yu ñu tëj suñuy jàkk bokk na ci mooy yàlla gu bari lu ji lu ñëw ci réew mi ñu ni franc-maçon yi ñoo ko fi indi saay buñ tooñ franc-maçon yi bari na lu xew ci réew mi jullit ñu ñoo ko fi indi franc yi pouvoir bi ñu leen jox sax amuñu ko senegal fii ay nit ñuy julli gëm ay sëriñ bu Touba wootee ñu dem bu Tivaouane wootee ñu dem bu Njaasaan wootee ñu dem kon ñooñu ay jullit lañu jàppee seen bopp te li li ñuy daganal ci réew mi buñ demee ci assemblée nationale ñoom ñoo koy woote député yi xam ngeen ni duñu du ñuy franc bu ñu naxante député yi ay turu jullit a ci nekk kon nit du nax boppam dañuy dañuy choisir bu fekkee dañoo bëgg nekk ay jullit ñu topp li yonent bi indi afa tuminuuna bi baadil kitaabi wa takfuruuna bi baad mais sénégalais day bëgg a nekk gëm lii bàyyi lii lislaam amul ci lu ñuy gëm ak lu ñuy bàyyi lislaam dafa wax ni képp koo xam ne li yàlla indi lànk nga ni doo ko topp na la wér ni dund gu xat ngay dund woman man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka mbokk li yàlla indi ñun ñëpp buñ naxantewul xam ne dunduñu ko Sénégal ci parpar loo lañ nekk diw tiijaan la diw murit la diw ibaadu la loolu parpar loo la mbokk yi yàlla xamul murit xamul tiijaan xamul ibaadu yàlla jullit la xam te jullit ñu ngi koy nattee ci lan du lu ñuy déclaré ci làmmiñ mais jullit ñu ngi koy nattee ci ay comportement ak ay attitude kon nañu seetaat suñuy comportement li may wax ci bopp laa ko commencé nañu seetaat suñuy comportement ak suñuy attitude sun nguur yi nga xam ne dañ leen di ŋàññi mbokk yi suñ nguur yi ñun ñoo leen fi teg ma waxaat ko encore une fois Makisal tegou fi bokom, ay Senegalè nyon kon wotel, ay joulit nyon kon wotel. Makisal, bimi djolre oubi, mwenk nyenen nyon fi nek kondowan. Senegalè nyon, le pouti Senegalè nyon swazir tek kofi. Kon, nanj bayi Makisal, nanj kon lak aferbe, aferbe sou nou bir lenek. Parse ke nit dangay nangouni dangay febar, nga dem fadyu di. Joulit nit ay nyon febar. Il pou nyon nangouni dangay febar. Bun nangouni dangay febar, nyo dem fadyu di. li ñuy faj nag lenn rek la mooy delluwaat ci alquran li ñuy faj lenn rek la mooy delluwaat ci jàngaleem yonent bi salaay salaam bàyyi cinéma yi ah, ak ah, li ñuy def ni ay cinéma la toog di def soow am na ñoo xam dañ leen di tuddee ay nitu diina show rek la ñuy def show amul njariñ ndax nit ku ne xam nga sa bopp te it ñu rafet njort suñuy mbokk jullit mbokk yi lu am solo la sufiyanke yi dañuy wax ni man zanna annahu xayrun min al kalbi fal kalbu xayrun minhu képp ku njort ni yaa gënu xaj ab xaja la gën man imaam Dramé damaa jàpp ni maa gën a bon ci nit ñi gën a yées ci nit ñi parce que samay bàkkaar yàlla xamal na ma ko te bàkkaar yi kenn ci xeet wi yàlla daf ma ko nëbb kon lan moo tax may jàpp ni ku ma gis maa la gën senegal tijaan bi jàpp na ni moo gën murit bi murit bi jàpp na ni moo gën tijaan bi ibaadu bi jàpp ni moo gën moo gën te kenn xamagul ku gën bala ñuy xam ku gën yowmal xiyaam yowmal xiyaam ñu àgg fa ci la ñuy xamee ku gën fii ci àdduna kenn xamagul ku gën waaw nañ rafet njort ci ñëpp ñëpp jàpp ni képp koo gis muy julli nga dégg ko mu tudd baatu seede yi nga rafet njort ni ab jullit la waaw ngay jëflante moom jëflante jullit ak moroomam waaye nag bu waxante dëgg jotee ñu waxante dëgg dëgg gi fu mu mën a nekk ak confrérie bu mu mën a féete ak koo xam ne sax gëmoo confrérie wala parti bu mu mën a nekk moo xam ñu yor nguur ak ñu ko yorul ñu am courage wax ko fii ak guñ foofu suñ penc mi coow li mën naa bari mais dara du fi jag kon tey sunu bakkaar yu bari yi ak sunu sunu comportement yu ñaaw yi nga xam ni dañuy déclaré wu ne ay jullit lañ te l'islam diine comportement la attitude la alaaj Abdou Aziz baax daan na ko wax te loolu tey ku ko jàng tey ci société bi ñi nga xam ne dañuy déclaré déclaré woon ni ay jullit lañ wax dëgg yàlla boo jaxasoo ñoom dangay xam ni la jullit ba yonent bi saai sallam jàngale woon bareetul yonent bi définir na kan mooy jullit al muslimu man sallima al na min lisaanihi wa yadihi nee na jullit mooy koo xam ni jullit ñëpp la ñoo mucc ci làmmiñam mucc ci loxoom waaw léegi nag ku nekk rek yaa gën a xam sa bopp xoolal ba xam yow penc bi mucc nañ sa làmmiñ ak sa loxo di xam ba xam jullit nga wala doo jullit kon man intervention boobu laa ciy def di invité waat boroom xam-xam yi ñu jàngale waat njàngalem yonent bi waaye ñu rafetante njortu ci suñu biir xam ne rek nit fii ak demoo yomal xiyaam bañ àtte la ban la kaay dugg àjjana kenn xamagul kuy jullit ak ku dul jullit foofu lañ ko xamee de parce que video fi di yuxu nan sama serigne fi gën sama tariqa bi gën lolu tel na nañ baye ba ag ci yalla bu yalla até ba pank jami ba duggal ñen ñi aljana ma sañoon ñepp dugg aljana julit yépp lolu lay ñaan ba duggal ñen ñi safara ci lañuy xam kan mo texe ak ku texewul mais aduna fi ndamu tel na fi kon nañ baye ndamu bi ta xamni li fi am ñun julit ñi suñ loxo ngi ci biir dañ bañ a naxante te waxante dëgg parce que dëgg rek mooy lislaam lislaam diinay dëgg la diinay laayante biir la in uridu illa al islah wa ma tawfiqiya illa billah wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu